بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله الجلوس في الصلاة كيفية الجلوس في الصلاة naka la ñuy toogee ci julli moo xam ñu nekk ci diggante ñaari sujjud wala taayagu njëkk wala taayagu mucc mooy suñu masala tey balaa ñoo soobu ci masala bi ñu ñaanal suñu mbokk ya ca Gaza ak ci Palestine yépp yàlla dimbale leen ci seeni noon nooni nit noonu baax noonu yàlla ko yonentam sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam mooy assaha yi na ñu tuddee seen bopp réewum Israël te duñu réew dudul ci tur yal na yàlla libéré Palestine yépp li ko dalee ca dex ga ba ca géej ga may ñu tawfiq ñun ñëpp ñu jullee ca masjidul aqsa masra sayyidina rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa Palestine kulluha hurra wa muharrara bi barakatil qur'an al karim وحرمة الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نياري جوتاي ولا نياري توغاي تي جولي نيو أم يكي مذاهب يغا خامني نيوم المذاهب الاربعه نياري توغاي يي كو نيك تي نيوم امغا جا بوزيشن توغاي بو نيك بو موي الافتراش توغاي نياري بو موي التورك الافتراش موي nga sampu sa tank ndeyjor bile tank barami djublo qibla Denga, nga toog ci tànk càmmoñ bi lii al iftiraash nii ngeen ko gisee lii mooy al iftiraash dégg nga lii al iftiraash toogaay bii nak la imam abu xanifata rahmatullahi alayhi wax ne julli gi yëpp nii la ci góor war a julli gi yëpp bu dee nak nag mu ne dafay pooju dégg nga nga dugal tànk càmmoñ bi ci biir mu lalu ni le bi le continuer samp bu ko defee nga daal di toog ci sa jëkkeetaay bi ci suuf lii la Abu Hanifa te wax ne jigéen moo koy jullee bu dee góor nag toogaay bu njëkk bi lay toog bu dee imaam Malik ak waa këram nag c'est tout à ñoom julli gi yëpp moo xam góor la moo xam jigéen la ni ngay toogee mooy pooju moo xam ci diggante ñaari sujjóot yi la moo xam ci dégg nga bi ngay taaye taaye bu njëkk wala bi ngay taaye bu dee ku mel ni imaam Abu Shafii rahmatullahi alayhi ak waa këram ñoom julli gi taaya bu mujj julli gi yépp toogaay bi ngay toog muy dégg nga tawarruk taaya bu mujj ci julli gi yépp ñi ngay toogee su fekkee julli gi dafa am ñaari taaya taaya bu njëkk bi da def iftiraash da ngay fekkee julli gi am ñaari taaya bu njëkk bi nii ngay toogee taaya bu mujj bi nga toogee nii su fekkee julli gi benn taaya rek la am ni ki suba nee nii ngay toogee bu dee imaam Ahmad ibn Hanbal ak waa këram nag su fekkee julli gi dafa am ñaari taaye taaye bu njëkk bi ngay toogee nii taaye bu mujj bi nga toogee nii su fekkee benn taaye rek la am ni ki suba taaye bu taaye boobu nii ngay toogee nii ngay toogee dégg nga su ko defee lu tax euh, différence yooyu la jumal Abu Hanifata dafa sukkandiku ci xadis boo xam ne ñu ngi waxtaanee julli yonante bi sallallahu alayhi wa sallam te iftiraat rek lañ ci wax ku mel ni Imam mi ngi sukkandiku ci xadis yonentu sallallahu alayhi wa sallam bu ñuy misaalee julle bu ñuy wax ne nan la daan julle te tawarruk rek lañu ci wax bu fekkee nag abu euh, imam Shafii ak imam Ahmad ñoom dañoo boole ñaari xadis yi ndax abu Humayda Saaidi solo na ñaari xadis yëpp su ko defee nu ñu leen di boolee mooy kon toogaayu iftiraash bi abu Xanifa te wax mooy taaye bu njëkk bi toogaayu tawarruk bi Malik wax mooy taaye bu mujj bi diggante imam Ahmad ak imam Shafii différence bi mooy kii dafa ne bu julli gi amee ñaari taaya ci lay am iftirash ak tawarruk bu julli gi amee benn taaya nag dégg nga iftirash lay am kii ne moom julli gi moom taaya bu mujj bi moom tawarruk rek lay doon moo xam julli gi benn taaya la am wala ñaari taaya ndax boo poojoo nee na ci ngay gën a mën a toog toogaay bu yàgg pour mën a ñaan te mooy ndax taaya boobu mooy taayab ñaan te bu fekkee ne tamit da ngay pooju ci taaya bu mujj di lal ci taaya bu njëkk ki ñëw fekk imaam bi toog dana mën a xam ci ban taaye la nekk ñu ci taaye bu njëkk wala ci taaye bu euh, mujj su ko defee bu ñu xoolee dalil yi nag dégg nga ala anana maliki yow na waaye opinion wu imaam Shafi ak imaam Ahmad ibnu Hanbal moo gën a mën a dëppale texte yi nga xam na ñoo wàcc ci toogaayu julli yëpp hada wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam amin